bu dee yaa ngi doog a seetaan suñu vidéo bul fàtte abonné liker partager parce que ça nous aide vraiment. lan ngeen jàpp tey ci tënk ci li nga jàpp moom moo di que juge bi la ndaw si waxoon ci bërëb ba kale ba cour suprême Marème Diop Gueye dëgg ba mu fa waxoon ne jaay doole la ñu bëgg teg Ousmane et li ñuy def yëpp teguñu ko ci yoon. que yëfu wayu yi ñuy def dañ koo war a arrêté et ñu bàyyi Ousmane comme tous les citoyens mu retiré fiche am dégg nga mun a participer ci parrainage yi loolu la kii firndeel tey mais kii dafa gën a sori dafa nekk lii état bi def wéeru ko fenn tegu ko ci xam-xam tegu ko ci dëgg kon boog nañu dindaat Ousmane niñ ko dindee faase ko nañ ko ci delloowaat ci ni mu gën a gaawee te bu ñu jëlee ci benn du ñu jël benn mesure boo xam ne mun na tere Ousmane nekk ci liste yi te Ousmane bu nekkee ci liste yi day wane que ne Ousmane day nga candidat la à la agent judiciaire l'État nee Sonko dafa jege mbokku euh, moo tax mu refusé ko. tontu naa la nee naa la ko yoon jege mooy lan waxul ne que xam na juge bi waxul ne que Ousmane lekk naag juge bi waxul ne aussi nan la tuddati euh, Ousmane Sonko. ak juge bi am na firnde nekk nan la tuddati euh, jokkoo nañu comme yéeru ko fenn dañoo jafur nguur goo xam ne dafa nekk ci jeexantalam tey jii jafur nañu xamatuñu fu ñu jëm wóolootuñu kenn képp koo xam ne que xam nañ ne que kii bu ñu xëy na bu ñu jéemee ger doxul ñu xoqatal doxul bu boobaa duñ la wóolu nak loolu moo tax fi mu ne xamatuñu ñoom fu ñuy jublu wante na ñu xam ne que junni magistrat ngi ci dëkk bi ñoo xam ne am nañu fit bi am nañu sañ-sañ bi am na ñu xam-xam bi te bu yàlla dogalee mu dox seen loxo dañu leen di gën a bottiwaat rek ci suuf. moom moo di que Ousmane Sonko dafa war a commencer ay parrainage am te it war a déposer candidature te loolu nag loolu moom mooy yoon dégg nga lii ñuy def yëpp maanaam ci xeetu noot la wante senegal yi yeewu nañu kenn du nangu ñu noot ñu te kenn it du nangu ñi nga xam ne dañoo jeexal ñu doon ay xong faaf dégg nga bëgg fee toog abada day yi mane loolu day dàkk tey lay gën a waxaat senegal yi ni leen waaw waaj leen élection yi Ousmane Sonko dana nek candidat insha allahu taala. sa hmm. lolou ma wax. Hmm. dana am ta da ngeen ko fekk. dang ko listikhar wala. amul listikhar amul dara gis nga ay affaireu tribunalu kasa ki man tribunal yi gawmako ko. Hmm, gëmoo waaw parce que munuma gem waaw ba Sonko ci biti ba di politique ak tay sa bu tribunal ci fekk dañ dañ top topp. maanaam du fa am ndam. du fa am ndam waaw. ak ku ko fa mën a yóbbu ak lu mu ko fa mën a yóbbu ak lu mu ñàkk-ñàkk fayda danañ fexe ba Sonko moom du fa jëlee ndam saa bu ñu ko tooñee mu dem ne dañ maa tooñ danañ fexe ba dossier boobu kenn du ko topp loolu nag munta am cim réew ba noppi man may jox beneen yaakaar ci beneen atte na nangam ak nangam waaye nag man damaa xam leneen lu sut tribunal yi hmm. waaw dama koo xam xam naa lu sut tribunal yi xam naa ñu maam siis yi xam naa ñu lu ñu lu féete kaw juge yi ak tribunal yii te loola nag bu soobee yàlla dana dana dana jël Sonko def ko muy ab candidat. Mm. te ñii di ko wax boo moytuwul ñoom ñoo koy dox ba mu sotti.